alhamdulilahi rabbil alamin sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa soxna ramatulaay maa ngi lay nuyu di ci yow di nuyu mbooleem auditeurs yi ak auditrices yi wéttali ko leer ak jamono di rajo télévision bu wal fajri góoram yàlla bu tedd googu nga laaj ma di maam xalifa ñas bu ñuy dàkkantalee borom xam xam-xam yi moom de benn jëmm la joo xam ne yàlla dafa tënk ci moom ay may yu tinkeeku ba may yu rëy tënk ci moom soo ko doon tinki ki lay déglu bu xamul day fone ay jëmm yu bëree bari ngay wax ndax may yooya dafa baaxoon a tasaaroo ci ay jëmm yooyu yëpp nag yàlla jagleen ko ko dajale ko ci jëmmam ju tedd ju sell jooja may yooya yi ca gën a fés mooy xam-xam ndax xam-xam rek mooy jox nit ki valeur xam-xam rek moo jox nit ki personnalité te moom yàlla da ko joxoon xam-xam bu tinkeeku ci wàllu yër ak ci wàllu yëkk def na ci xam-xam loo xam ne ci jamonoy saxaaba yi ba bis may wax ak yow tey nii dana néew koo dajeeg mu def lu mel noonu ci xam-xam xam-xam bu toll noonu la mu ci def ci wàllu qualité ak ci wàllu quantité néew na ko koy dajeeg ci moom mu def loola ci jamonoy saxaaba yi laay wax ak yow na ba ci ji jamono yàlla tamit may ko li gën a jafe mooy wilaaya ak juddoowaale dafa judd rek di wëlli mu xamul rek nga nekk wëlli wilaayaam ko dafa ko juddoowaale yàlla def ci moom mu nekkoon jëmu ju set ju tedd ju sell joo xam ne dafa dëddoon àdduna àdduna dafa daw dëgmal ko moom moo ko am na koo xam ne da koy woote dafa dëdd àdduna fekk àddunaa ko dëdd moom nag àdduna da koo dëgmal mu dëdd ko di jëmu ju tedd ju sell joo xam ne dafa yore woon ci koy escalier nit ñi jaaree ci moom di xam ñii di jaaree ci moom di am ñii di jaaree ci moom di man te loolu li muy métti métti mosul te wonk ko mosul jàmbatu lépp da ko defoon rek ngir sant yàlla mu nekkoon jëmm ju tedd joo xam ne njub sadduwaayu lépp la ci woon kuñ ne yaa jub ba mel ni maam xalifa xamal ne jay nañ la euh, ku yàlla mayoon jub la bu jéggi dayoo ba tax na àdduna bi li muy tilim tilim Mam khalifa ñes xuus na ko ak colaayu perkal bu wex tal ci diirab juróom ñetti fukki at taqut taqalewut kon mom jenn jëm la jo xamne ne personnalité yoyu dajé ci mom suma la ko doon tinkil nga may deglu da nga sa jëm ji lepp di ay nopp ngir nga man ko bànneexal ci mayam yu for yoya su la dégg faatee ñi la koy wan da nga ngéejiw sa jëm ji lepp di ay bëtt nga man ko bànneexal ci jëmmam ju tedd ju sel yu ja mayu tedd yi ne su boobaa nag sa lisaanu maqaal bu mënta wax tamit sa lisaanu xaal dana wax li shaa'iru layla ba waxoon ida badat layla fa kulli ayunun wa in hiya naajat ni fa kulli saamia yëpp nag ba dajee ci moom moo taxoon góor gu tedd ga baayam maam Alaaji Abdoulaye Niass jël ko rek samp ko muy xalifaam desini ko tamit def ko muy xamsatul waslu koo xam ne day jokkale lépp lu baax maam Alaaji xëy rek woo ko ne ko ah, Kaab de ku tedd la jëmmam ja arrosé ne ko ci bëti ci jëmmi sayyiduna muhammad dem ya moom ka mooma nag tag na yonentou bi ba yonentou bi yëkkati mbubbu lambay jox ko ko lambay goga bu tiliman ndox du ko fot dañ koy tek ci safara wi rek safara wat lak tilim ba yére ba mel na melaatoon mu ne ko mais nak limuy tedd tedd ak limuy bax bax sa nawle la dama bëgg tag wi mu defoon yonantu ba bi jox ko mbubbu ma nang ko jël nga def ko tadd indi sa so, jël sadru bale bolé ko mom sadru ajisu kii bi njàng xarul ñoo xam lolu ben nga indi sadru mom mu indi ajisu wala nga indi ajisu moom mu indi sadru mam khalifa defar ko defar bo xam bam ko wone bayam bayam ala jeb la ngiss dafa yému sant yalla gërem ko lol ne bi hadna soso ba légui ñi tag yonent bi ko mos def li mos taxam mbubb de bu doon ben ya kaab bu ngeen bokkantewoon jamono yeyo nga ngeen awante ko bu solee àllarba jox la nga sol talaata bu solee tàlla talaata nga sol altine bu solee samedi nga sol dimanche bu ya doon ñaar nag yow laa gis ngay ko xam ne ci kaw suuf ta yaa benn ba ne ko papa lu kaab waxoon mu ne dafa ne woon baana soaadu fa yow mat boolu maam ne ko bu doon man du ma wax loolu sama sabru bi damay wax rek diri miramata qalbil yow ma mat boolu kaab ne ko mu tayyamun israha lam yuf da mat boolu ba way ya jeex ba koy seet weer ya lu mu néew dana mat ay 80 jëm 100 lépp mu jël ràbbaat ko def ko liggéey boo xam ne moom kenn ko mos a def ñaareel bi bàyyam woowaat ko ne ko lisaanu diin ñu koy wax maanaam Muhammad ibnu Abdallah di ibnu Xatib nga xam ne tabaarakallaahu ci jamono jamonoy Andalus la Andalus yi la si seen jamono seen dawlatul Andalus ku ne dégg na leen mu ngi tolloog 1313 la gane si woon àdduna ci miladiya toll ba cent ba 1314 1374 kon ci la génn àdduna soo ko jëlee tamit ci euh, hijriya dafa lay jox maanaam mm, maanaam 713 ba ci 776 ah maam Khalifa bàyyam woo ko ne ko nag kooku dee waykat la bu jéggi dayoo ku yàlla may ci woy la def na fi benn nuunu ya boo xam ne daj daj des na fi di léeb dama bëgg nga defaraat ko ni nga def ak kaab ki ak mom nga ko ak mom maam khalifa ne ko lu waxon mu ne dafa salma li salma salma li salma ma de nga salma bi salma lil hajri takwini mam khalifa ne waqat kaliftu biha min qabli takwini indi indi ko ca jinaas bu jéggi dayo booba ba way way jeex lol, yim lol maam khalifa ñes ki doom ju rëy ji nga xamne yalla may nako ko mu wat ko ne ko bu sey reuyu mi nga xamne mo jël rayay tag yonent bi ñepp ko ko nangul euh, jëm ju tedd ju sell joju nga xamne mi ngi gane ci aduna ci boko jëlé ci 608 ci lay gane ci aduna ba ci 696 euh boko jëlé nak ci hijriya mu dox la ay manam ay ay ci ci mila ay 1213 ba 1295 mam khalifa ñew demit wara wara liggéeyat tirem bi gaaw nga xam ne téere du mën ko jàngale rek moom bu sëriñ doy na xam-xam boo demee ëttu këru diine yu bëri moom la ñuy gàmmoo ku ne xam na ko ci rafetal tagg yonantu bi maam xalifa ñëw daal ne ko waaw lu bu sëriñ waxoon bu sëriñ mën ko defa ne aminta takkuri jiraani bi di salami masajta dama an jara min muqulatin bi dami maam xalifa ne bu doon man du ma wax loolu aji suba daal dama koy defaraat bu ñu daal amin tadakkuri jiraan bi di salami man damay wax ne masajta dam an jara min muqulatin bi dami دادنا نكو ماي كوما سي عبد صدر بي نكو كيف تصبر عن حي بذي ثلمي بصير نكو اذ اومد البرق في ظلماء من قدمي وي وجيا استوار الاسلام بلي كوما سا ديف لولو مستعان ممكن موكو في ديف بايا مو واتيكو نكو سي عمر الفوتي استوارام دافا ريول مي بري ني سي خام ني خام نيب نتي اي واخ دما بغ نغ بيند سي واخ سي بيند سي لو خام ني كين نور تعال مصطفى بايا كو ديم كا Cheikh Oumar Fouti moom moom moom moom maam Khalifa maam Khalifa nettalil ko ko ba mu jeex ne ko bu la neexoon ma génnee ko léegi mu taxaw sa kanam dëggal li ma wax mu jël tànk ba bés ko ne ko benn tànk laa mos a bés muy bu Seydil Hadji Malick yaa ko ñaareel maam Khalifa ne nil nal marama bi mathi cheikhana omara xalifata cheikh man bi diini qad amara noonu la ko jëlee tamit ne ko Serigne Touba sama wóllëre la jox na ma téere bi gën ku la jox li gën dafa bëgg nga gën jox na ma téere buy firi alquran moom tamit mu jël ko ne ko tontul ma ko te nga def ko ay way mu del mu delloo ko ne ko aska salaamin ka taami suhdi bi raaxi yenuubu an naa wisaala raaxi bi raaxi ba mu àndeeg bàyyam tamit bàyyi ko faas ngi jaar tiwaawoon maam alaaji maalik góor yàlla gu tedd ga yëkkati xasidaam bu rafet ba def ko ci alaaji Abdoulaye Niass ci ataa xabib yi maam xalifa ne ko maam alaaji Abdoulaye ne ko doom maam alaaji maalik mi baax li may wax lépp dafa nekk ci moom dama bëgg nga tontul ma ko ci même baxru nag basid la ci même xaafiya siiniya la mustafilun failun mustafilun faalun la mu ne ko lu ma walaa ji maali wax mu ne fa ne ata habibi li rabbil hamdu min wa jaana id atana tibu an mu ne man damay wax ne yuti wa yamdahu man qad jaa min faasi alxaaju maaliku mun jinnaasi min faasi bàyyam bit lool ni daal maam xalifa mooy jëmmi xam-xam ku dajeeg moom dajeeg nga xam-xam maam xalifa mooy jëmmi mbaax ku dajeeg moom jëj ku dajeeg moom dajeeg nga ak mbaax maam xalifa mooy jëmmi jub ku dajeeg moom dajeeg nga ak jëmmi jëmee dajeeg nga ak njub bàyyam doy loo ko ne ko doom maa la jur waaye ku la wóolu laa ku la nawloo laa su ma génnee àdduna bu ma terelee kenn jullee ma ko mën ko denc ma sama ndax kat seydina arab muhiddin ci saawi yàmba lañ ko dencoon seydina aliou tamasin ci saawi yàmba ya lañ ko dencoon ñu ngi koy jungi ne ko xutbu mu jël ko fa defal ko la bàyyam bëggoon lépp wutu ko ci xilaafa ga njëkk ki mooy ki njëkk a dégg xalifa ci réew mi 1922 ci weeru sawaal muy wari bi mu amee fukki fan ak juróom ñett ñu teg ci fukki fan ak ñaar seydil mali wuyu ji boromam abu Aboubacar si dégg xalifa ñu teg ci tamit juróom-ñaari at mu tolloog ama sumus kee samsu la woon xaadimu rasool jëmm ju tedd ja wuyu boromam Mouhamadin Moustapha dégg xalifa kon moom xalifa mooy xalifaay xalifa mooy ama bàyyi ma la di ko wax islaam yi yaay xalifa xalifa yi kon koo njëkk a déggoon moom xalifa mayam xam-xamam mbaaxam ragal yàlla defaroom defareem dëddu àddunaam mënuma koo tënk ci ay minute soo bëggee tënk-tënk rek dafay mel ni géej la goo xam ne amul tefes yow doo xam fan commencé xuus boo xuusee ci wilaaya ga doo jeexal boo xuusee ci njub ga doo jeexal boo xuusee ci njàng mag njàngale ma doo jeexal boo xuusee ci ci ci ci mbaax gaag baaxalaate ga doo ko mën a jeexal kon moom daal côté boo ko mën dañëw da nga fekk muy muy géej goo xam ne amul tefes noo ca duggee rek tooyee ca góor gu tedd gu yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem muy maam Khalifa Niass muy borom xam-xam yi borom xam-xam